militaire di jël pouvoir bi euh, si Gabon loolu nag euh, du mbettaate du mbettaate ah parce que euh, Gabon xam nañu ni réew mu nga xam ne réew mu riche réew mu am pétrole la bu am gaz am ay manganèse ak bois richesse yooyu nag la plupart ay sociétés occidentales surtout françaises ñoo koy exploité depuis longtemps donc ce qui fait que euh, euh, premier président bi euh, ñu destitué woon ko ensuite Bongo jël pouvoir bi 67 la Bongo ñëw dafa Bongo na bokkoon na ci lu ñuy waxee ni pilier wu France Afrique parce que dafa lëkkale woon ak tubaab bi bay léegi bay mu ba mu fi jógee deux mille deux mille deux mille neuf la fi la fi génne àdduna doom euh, a remplacé ko donc changé wul doom bi dafa nekk dans la continuité euh, donc Gabon dañu con considéré que ni mooy pilier ci pilier wu euh, France Afrique lu ñu woowee France Afrique mooy relation yu nga xam ni yu dëgër la diggante France à Afrique ay relation particulière depuis Foccart bay léegi c'est vrai que jéem nañ ko changer mais mu ngi toujours maintenir dafay résister relation yooyu mais pour dellu si ci coup d'état bu am bi Euh, c'est que euh, euh, dafay mel ne ni phénomène boobu dafay généraliser Afrique waaye nag nañu xool pour analyser ko dañu war a xool particularité wu réew mu nekk ku si nekk am nga sa particularité lu tax changement am fa fii nag soo ko gisee si Gabon amoon na ay fitna yu amoon ci élection yu 2016 bu permettre Ali jël pouvoir bi xam nañu ne amoon i contesté woon nañu euh, élection yooyu ba nga xam ni Jean Ping moo moo nekkoon ci opposition bi euh, mu am ay fitna am ni ci ñu ci dee ñu bari duñ leen rey ci ci opposition yi ci leader yi euh, bay telle sorte que ni Jean Ping dafa mujj a bàyyi daal dem Ali Bongo daal di jël pouvoir bi renforcer ko waaye nag depuis ñu mu ngi ci pouvoir bi depuis d'ailleurs papa mu nekk ci pouvoir bi ak moom di suñu daal ci malgré richesse yu nga xam ni bare na Gabon yore ko richesse yooyu. Euh, permettre euh, ñu améliorer condition de vie population yi euh, li ñu gën a lool loolu dafa gën a yokku alors que réew moo riche la réew mu am pétrole la réew mu am gaz la réew mu am bois la réew mu am manganèse te richesse yooyu yëpp su fekkoon ñu ñu partagé ko dana améliorer condition vie wu population mais loolu nag amu fa li ñu ci yokkate mooy situation politique bi donc dafa amoon crise post électorale et puis yi nga xam ni moom la ñuy def ci fan yi Euh, bu jëkk ñu waxoon ni opposition moo ko gagné après Ali Bongo daal di wax ni moom moo gagné euh, loolu militaires yi nag wax ni euh, élection yi nu mu demee nu mu doxal ni ñu ko doxalee ba ñu a génnee résultat yi comme nu mu ko defee woon loolu noonu duñ ko nangu moo tax ñu jël pouvoir bi foofu waaye nag ñoom waxaguñu seen projet waxaguñ ko xëy na ci fan yi daañu ko gën a leeral mais dans tous les cas situation yi mooy situation mal gouvernance moo koy indi suñ ko gisee ak difficulté nga xam population ñu nga ci Euh, année yu bari ñoo nga si ay décennies te kenn amélioré woon loolu nag dafa leen dafay population yi dafay révolter ay créer ay frustration jeunes yi créer ay frustration ci leader leader de l' opposition ñi nga xam ne ñoo itam ñu ngi militer di def campagne bay bay léegi dañu fekk def seen benn coalition moo leen permettre ñu am résultat yooyu léegi dañu bëgg leen ko xañ e donc blocage yooyu am euh, crise post électorale bu am loolu mooy indi fitna bi euh, pouvoir bi nag militaire jël ko euh, ci force donc loolu ñu bëri condamné condamné nañ ko waaye condamné wu condamné nañu naka la militaire yi jëlee pouvoir bi waaye nag peut-être amuñu woon beneen solution pour euh, changer situation bi waaye nag organisation internationale yi ak ak yeneen puissance yi condamné ni ni ñu jëlee pouvoir par la force waaye nag mu ngi dépendre léegi situation bi Euh, naka militaire lan mooy seen attitude lan mooy seen projet lan la ñu bëgg def ci réew mi ak avenir réew mi loolu nag ñu ngi leen di déglu xam naa daañu leeral seen position